tey bu ñu tey ci tribunal bi tey ñëpp nangu nañu que lii du mbiru droit lii mbiru euh, droit euh, mbiru mbiru la daanaka tey dañu ñëwoon fii pour ñu jox ñu benn verdict parce que procès bi ñu ñëpp toog nañ ci procès bi di déglu verdict bi euh, euh, euh, di di di déglu plus ou moins les yi mu am yaakaar am tey benn verdict bu nga xam ne ni mënoon na jubale askan bi ak magistrature bi wante dañ fi ñëw fekk si fi tey ay magistrat au lieu ñuy wax le droit ñuy toog fi di lépp léeboon lépp ñorul kenn lépp saful kenn lu ñu fi indi woon maleureusement tey gis nañ leneen moo tax tey lu ñuy dund tey ñun je pense que loolu la askan Sénégal yëpp di nga sentir mooy tey magistrature Sénégal feebaru dana ma yàlla jëg na ma yàlla baat ci kàddu yi na ma Sénégal yi jëggal dama ci kàddu yi dama ne du caga yi rek ñoo nekk ci mbedd bi yor seen ay carnet secrétaire fii ci biir palais bi dafa am ay magistrat yi nga xam ne dañu dañu nangu doon ay caga wàcce seen pantalon ngir la neexal exécutif bi loolu moo fi am dama xool nag fan lay mujjee wax ci wax ji mooy lan dëkk bi ñoo ko bokk dañu sonn dañu tay ci am naqar ñëw tribunal tribunal dañu fajal suñu naqar ñu ñëw fii tribunal di lépp di léeboon di ñu kokkali dama ne lu may ñaax tey mooy surtout opposition bi maa ngi woo benn unité d' opposition parce que lenn rek moo fi sës tey mooy wàcc ci mbedd bi lijjanti ko ak Macky parce que dëkk bi santu Sall te du fi Macky bëgg a def du jàll tey du jàll ëllëg